التي هي مصدر إنقاذ البشرية الحيراء وكذلك هي عماد صلاح المجتمع وهي أيضا سبيل فلاح المؤمنين في الدنيا والآخرة إخوة الإيمان إن الأخلاق في القرآن الكريم لن تدع جانبا من جوانب حياة الإنسانية روحية أو جسمية دينية أو دنيوية عقلية أو عاطفية فردية أو جماعية إلا رسمت لها المنهج الأمثل لسلوك للسلوك الرفيع يختلف عما رسمه الناس في مجال الأخلاق باسم الدين وباسم الحضارة وباسم العرف أو المجتمع حيث أن القرآن الكريم والسنة النبوية رسما منهجا متكاملا شاملا واقعيا في مجال الأخلاق منسجما ومتناسقا مع طبيعة الإنسان وإليكم التفصيل كما جاء في الكتاب المبين mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dénk sunu bopp di leen dénk ragal yàlla ak topp sunna su yonent bi sallallahu alayhi ak roy ay jikkoom yu rafet yi nga xamante ni ñooy source sauver humanité tout entière jikko yonent bi sallallahu alayhi mooy balluwaayu xettali doomu aadama yi nekk ci ak réer aku ngëlëmte waaye naka noonu jikko yonent bi sallallahu mooy baasu baaxal am penc naka noonu jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy yoonu texet ñi gëm yàlla ci adduna ak àllaaxira mbokki julliti jikko ci alquraanul karim alquraan ni mu abordé jikko bàyyiwul benn wàll ci wàllu dundu doomu aadama moo xam ruuxam la wala jëmmam ji la moo xam wàllu diineem la wala lu jëm ci àdduna mooxam xam wàllu xel la wala wàllu sentiment moo individuel la nit ki moom képp moo xam mbirum penc mi di mbooloo lu dul alquraanul karim tracel na doomu aadama wenn doxalin benn système bu idéal bu gën a baax jëme ko ci jikko yu kawe kawe kawe jikko jooja alquran tracel doomu aadama wuute ak li nga xamante ni moom la nit ñi tegal seen bopp ci ni loola lañ tudde ay jikko yenn saay sax diine leen koy askanal te loola sori diine la mbaa ñu askale ko civilisation di wax ni lii mooy civilisation doomu aadama yi ci domaine bi mbaa ñu koy askanele ak mbaax wala aada wala cosaan mbaa ñu askale ne ko ni penc mi lii moo fi seenu mbaax wala lii mooy jikko te loola mën naa am wuute na ak jikko ji alquran ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tracé jikko ji alquran indi ak sunna si yonent bi sallallahu jikko la joo xamante ni ju matale la waaye jikko la joo xamante ni ju ñu mën a jëfe la nekkul lu ci imaginaire nekkul lu xayaal waaye lu mën a nekk la ndax loola la yàlla wàcce woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yar ci ay génération mu yar ci saxaabaam ya saxaaba yi loolu loolu taabiina yi loola di continuer di ñëw ba jëmmi tey ji ay nit jikkowoo jikkoy alquran jikko woo jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag buñ ko bëggee xam loolu dafa nekk lu compatible maanaam lu dëppoo ak nature bi yàlla moo ñaale doomu aadama ci mu mën a jikkowoo jikkoy alquran ci mu mën a bàyyi lu bon def lu baax ndax doomu aadama ba kanam yàlla daf ko mooñaale ak dualité fa alhamaha fujuraha wa taqwaha bakkan bu ne daa amu kàccoor bu mu toogaale waaye tam am ak mbaax bu nekk ci moom saay bu ñu joxee yitte mbaax gi kàccoor googa day nelaw saay bu ñu sàgganee mbaax gi bàyyi bakkan bi boyal ko ak kàccoor rek lay dund loolu nag dana feeñ ci ñi alquran indee jikko ci domaine bu ne al axlaq allati tataallaqu bil fard fi kaafati nawaxihi am na jikko yoo xamante ni alquran da koo indi mu jëm ci jëmmi doomu aadama yi ci mboolem fànn yooye ndëkk bakkanu doomu aadama ñu tàmbalee ko ci aw yaramam jismiyan lahu daruratuhu wa xaajaatuhu yaramu doomu aadama jëmm ji corpus bi dafa am ay lu mënta ñàkk ci moom ak loo xamante ni da koo aajowoo lu mel ni lekk ak naan bakkanu doomu aadama jëmmam daf koo ajoo saay bu ko bàyyee privé ko boppam ti faaxan du ko defati leen ñu robi ko ànd ak lépp nag yàlla daa am yum la ci daganal am yum la ci xaraamal ba ci sax ni la bu ci ëppal ba sax ni la bu bul yàq loolu mu ngi lay jàngal mu ngi lay yar yàlla wax nañu ci alquranul karim wa kulu washrabu wala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin lekk leen naan leen te bu leen yàq yàlla bëggul ko yàq kon mu ngi yar dèjà jëmmi doomu aadama ji bu fekkee ni da foog ni yow sa dund gi lekk képp la mu ne la bu ci yàq lekk gi dafa am rekk benn lu ndaw lu muy dox ci li la fi indi ñëwoo àdduna ngir lekk rek waaye lekk gi da lay jàppale ci li la fi indi mooy ngir nga jaamu yàlla kon bul di dépenser lu ëpp aajo ji bul yàq waaye tam bul ngott lool waaw walladina ida anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kaana bayna dalika qawama yàlla dafa bëgg diggu doomu ci lépp diggu doomu ci lépp rawatina lool loolu pour citer aaya boobu rek ci lu jëm ci wàllu jëmm ci lu jëm ci wàllu xel mi aqlan lahu mawaahibuhu wa afaaqu qaala taala qul inzuru maada fi samawati wal ard xelum doomu aadama xel mi yàlla daf koo may ay ay ay may may ko tam ay origine xel alquran jikko ji mu bëgg ñu yar ci suñuy xel mooy ñu ciy xalaat waaye di ci xalaat lu baax di ci xalaat lu baax yàlla bu ñuy wax xool leen li nekk ci asamaan yi ak suuf ci yeneen aaye afalaa yanzuruuna ila al ibili kayfa xuliqat wa ila alsamaai kayfa rufiat wa ila aljibaali kayfa nusibat wa yàlla xoolub xalam lañu ñu xoolloo xoolub xool lii yàlla bind gëleem nan la ko bindee pour nga xalaat jikko ji gëleem am nga am ko mooy ak muñ ak sax naka noonu asamaan si ni mu kawee nga am yitte ju kawe montagne yi ni ñu saxee nga am persévérance ci loo mën a nekk suuf si ni mu ko tàllalee mooy nga am ak muñ akuk dal kon mu ngi lay xalaat loo te xel bu ko yàlla mayul woon doomu aadama dangay wax ni doomu aadama ak bàyyi ma ñooy yem doomu aadama moog bàyyi ma ñoom ñooy yem kon xel mi yàlla daf la daf la sant nga ci nga ciy xalaat bu dul woon am xel xam-xam du bari ci benn fànn nag bu mu mën a doon fànn bu mu doon rek xel yaa tax te fu ne rek la yàlla jox ñenn ñu xam fa lu baree baree bari moo tax yàlla wax ci alquran fasalu ahla dikri in kuntum laa taalamun domaine bu ne bu ngeen fa xamul laaj leen ña jaf xam ñoom ñu leeral leen foofu kon xel lu jaadu la ñuy jàngloo suñuy suñuy doom li leen xalaat loo waaye ñu bañ a nekk ñoo xamante ni rek Eh, lépp day ñëw rek di jàll duñ ci xalaat dara duñ ci jàngat dara duñ ci loolu jikko jooju lañu yàlla soxlal ci alquran ci xel bu fekkee wàllu eh, bakkan bi ak xol bi bakkan an nafs aw al qalb lahu mashaa'iru wa dawaafi'u wa ashwaaqu xolu doomu aadama wala bakkanam ñoom ñaar mën ngeen a lee mën nga leen a boole ñoom ñaar dañoo am ay yëg-yëg xam ngeen xol mooy mooy commandé moo mooy commandé cër yi doomu aadama yépp xoolal leen commandé xol bi mooy mooy joxe ndigal mooy tere bëgg-bëgg bu fi amee te xol bëggul tam bu boobaa dem xol boobu nag moom dafa am ay yëg-yëg am ay bëgg-bëgg am yoo xamante ni moo koy motiver ci ay mbir moo tax it faaw nga yar ko faaw nga yar ko ci yar bakkan bi tazkiyatu nafs moo tax yàlla wax qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaha taxe ñeel ne ki yar bakkanam waaye torox ñeel ki ko sàggane ba yaru kon suñu bakkan yi il faut que ñu leen yar ci di leen ferloo ci ay bëgg-bëgg wa nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala xubbi radaa'i wa in tuftimhu yanfatimi imam Busayri nee bakkan moo xalee yam dañoo bëgg nàmp bakkan bànneex rek la bëgg boo ko ferelee mu fer boo ko boyalee fereloo ko day continuer bëgg di namp rek dem ba nekk mag bëgg continuer di nàmp rek bañ a fer kon bakkan doomu aadama dañ koy yaral alquran loolu la ñu wax yeneen jikko yi nga xamante ni yii jikko yi bakkan la jëmm ji individu bi yii di ñëw mooy jikko yi aju yi alquran wax mu aju ci famille mu aju ci famille yooyu bi ci jiitu mooy relation bi nekk diggante ñaari way dencante a famille buñ ko waxee entité bi gën a ndaw mooy jëkkër ak jabar njaboot gi door a ñëw foofu tam alquran dafay orienté ñaari parti yëpp day orienté borom kër gi di orienté soxna si borom kër gi nag la ëpp sax lu mu waxal ndax kër gi bu jegee moom la bu jagadee moom la yàlla góor ñi la waxal ni leen waa wa aachiruhunna bil maaruf dund leen ak soxna yi ci njekk njekk ko ne xam na ko ba nga bëggee ñu may la ko na nga doon def di wane njëkk ak mbaax ak bëgg loola boo ko continuer rek njekk rek ngeen di dudd waaye boo fekkee da ngaa consommer mariage ba pare lun wax nga bëgg cee xëpp kaani loolu bu boobaa dundatoo njekk kon njëkk li ba nga bëggee nanga nga doon def ban may la ko loolu boo ko continuer rek yaa ngi ci njëkk ba léegi di bàyyi xel lu baree baree bari ndax jigéen dafa faible ñu yëkkati ko jox la ko may la ko ak faiblesse bi mu àndal boo bàyyiwul xel ay caprice am rek maari day taali loolu lañu yàlla sant beneen bi lu ngeen wuute wuute mu mujj pilier wu jéggalu jébbalu bu boobaa tam boo ko defee la leen rek yàlla fu jëlal leen paar nag yàlla danañu fa in ataanakum fala tabgu alayhinna sabila inna allaha kaana aliyan kabira soxna yi buñ leen toppee buñ wommatoo ci seeni i ndigal ndax nu suus nga ragaloon da doon jalgati di def lu naka sadul noonu yàlla digal la jox la ay méthode woo ko yare gàddaay ko ci lal bi naka noonu ba dem ba wax sax na nga ko dóor na woo ay mbokkam ñu léegi moom mu dem ba bàyyi yooyu yëpp yow nga continuer bëgg yar sob yar rek ni dangay dóor bëgg di ko koñe bëgg di ko xatal yàlla nee na nag bu ngeen defee loolu man ku kawe laa te ku màgg laa dana jëlal paar soxna yi te bu boobaa du gën ci yéen kon loolu ñu bàyyi ko xel dundu njekk ak soxna yi naka noonu relation bi dox diggante ñaari way jur ak i doom foofu tam ñaari parti yëpp doom li li ko alquran sant ci jikko ci jëflante ak way wayjur mooy rafetal ak nu wayjur man a mel doomu aadama yépp yamuñu ay tempérament am na way wayjur yu naqari deret yoo xamante ni mënoo leen a soppi ñoom noona la ñuy continuer ba faw yow yaay xam ni ngay jëflanteen ñoom am na wayjur yoo xamante ni dañoo lawet lool yow boo dul def li nga war ci seen diggante rek boo maytul di nga lor sa bopp yow en tant que doom kon danga nga war a rafetal fu nu mën a nekk alxuraan bu demee ba lay wax ni la ñoom sa ñaari way jur bu fekkee ni sax gëmuñu ñu lay jéem la rafetal jëme ci ñoom wa in jahadaka ala an tushrika ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa saaxibhuma fi dunya maarufa buñ la doon forcé sax di la def loolu yàlla bëggul lu mel ni bokkaale yàlla nee bu leen topp ci loolu waaye nag na rafetal jëme ci ñoom way jur yi bu doon ab yéefar la sax alquran de la sentinelle rafetal jëme ci ñoom rawatina way jur woo xamante ni jullit la tudd Muhammad wala Abdurrahman wala Abdallah yaay ji tudd Khadija wala Fatima léegi ñoom ñu jur la ci farata ak sunna di jéem ci yow ba nga mënal sa bopp nga xëy di ñaawe jëme ci ñoom faaw di nga ko gis kon ñu bàyyi jikko jooju quintessence bi dox bi bi gën a am solo ci jikko yi diggante doom ak way jur mooy rafetal jëme ci ñoom beneen bi bu fekkee ni yow euh, jur nga mooy say doom na leen yar yarub diine li ñu àdduna jaral bu ñu ko diinee jaraloon léegi penc mi ja wayjur yi àdduna jaral na leen seeni doom seenu njàng ñu fay ci lu baree baree bari ci alal école supérieure tel la sama doom di jànge mensualité tel laay fay mais jaralu ko fay ñaar téeméer oustaz doomam jàngi alquranul karim sa doom dina dund ba majeur du fer ijji du mën a boole bi asmi du ko mën a boole bismillahi rahmaani rahim te nee nga fayal nga ko ba am lijaasa yu kawe am na master am na doctorat am ingénieur la mais diine sifr diine zéro kooku amel nga ko ak yow way jur te loolu mën naa mënatu ko dabaatalal boppam fexeel ba yow mi nekk doom ju mel noonu loolu bu mu dal say doom yow boo demee ba ami doom say doom na alxuraan jiitu ci ñoom na leen yar bu ragal tam ak ñàkk yàlla mooy wërsëgal njaboot wala taqtulu awlaadakum xashyata imlaaqin beneen aaya min imlaaqin nahnu narzuqukum wa iyaahum ñun ñoo leen di wërsëgal ak ñoom njaboot gi loolu nga bàyyi ko xel yàlla moo ko jël en charge adduna bi ku fi nekk di dox yàlla jël en charge sa dund yàlla ñun ñëpp moo la ñuy dundal wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala allahi rizquha huwa yaalamu mustaqarraha wa mustawdaaha fi kitaabin mubin yàlla luy dukkat ci kaw suuf du loolu nit rek taxul mu ko ciy wax ba ci melante yi yàlla nee na maa seen wërsëg maa xam fa ñuy mujj maa xam jamono ji nekk ak fan lañ leen di déposé ji ëllëg lépp nag mu ngi ci téere bu bir bu ma xam man borom subhanahu wa kon loolu dañ ci am xel mu dal def li ñu war suñ digganteeg njaboot gi li ci des ñu bàyyi kook yàlla moom moo koy def moo leen fi indi te moom moo leen yor alxalqu kulluhum iyaalullah mbindeef yépp njabootug yàlla la te yàlla moom ak njabootam moo ciy def li ko neex li mu bëgg li ko war balaa nga xam ni yoroo sa njaboot mën a loo leen dara nga xëy faatu est-ce que boo faatoo dañuy faatu ànd ak yow dañuy continuer dund maanaam sax biñ fi jógee la seenu dund yi dàq yàlla moom moo yor lool loolu ñu bàyyi ko xel beneen bi ci euh, jikko ci njaboot gi mooy diggante ndëg relation diggante way jige mbokkum aqrab mbokkum dret moo xam geeñ la wala géeño la wala meen walla ay dëkkandoo foofu tam li ñu fi yàlla sant mooy ak maandu ak rafetal ak joxe maanaam dimbale yàlla dani inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahshai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun yàlla nee na damaa digle maandu rafetal ak jox say way jige ñaale tere lu ñaaw ak lu ñu sib ak daw yàlla nee na maa ngi leen di waar ci loolu ngir ngeen waaru fàttaliku bu kenn jàpp ni manal nga sa bopp lépp ba nga dee ni aajo woowoo say mbokk amul de ba nga dee ni aajo woowoo say dëkkandoo amul de ndax bi nga juddoo ay mbokka taxaw boo faatoo ay mbokk ay taxaw ak i dëkkandoo boo feebaree noonu boo amee ay jafe-jafe noonu kon diggante boobu tam ci alquran lim ñu si sant ci wàllu jikko mooy ñu bàyyi ko xel ñu rafetal beneen bi mooy jikko yi alquran wax yi aju ci penc mi bi ci jiitu mooy ay teggin ak i comportement fi aadaabi wa tasarrufaati teggin yeeg comportement yi commencé ko ci biir kër ga yàlla bu demee bay wax yaa ayuha alladina amanu laa tadxulu buyutan gayra buyutikum xatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha mu ngi waxi teggin yéen ñi yàlla bu leen dugg benn néeg bu dul seen néeg bi ngeen yeewoo loolu da ngeen a fëgg nuyu ña fa duy teggin loolu ay teggin la teggin yi bokk na ci gone na wek mag jox ko ab cër respecté ko foo gis ku la mag jàppe ko ni sa mag la wala sa baay la wala sa ndijaay la mag di yërëm gone loolu ay teggin la bu naka noonu teggin yeeg comportement yi naka noonu ci wàllu jikko ak penc mi sa wàllu koom ak say relation say jëflante bu dee koom bul def ci sa mind ci sa xel ni nit ñi dama leen di wër di dribble rek di leen nax li sénégalais yi di wax dóor loolu jaaduwul yàlla ba ci njënd njaay dafa tëkku ñiy jënd ak di di jaay waylun lil mutaffifin alladina ida ktaaluu ala annaasi yastawfuun wa ida kaaluuhum aw wazanuuhum yuxsiruun alaa yazunnu ulaika annahum mabcuusuun li yawmin azim yawma yaqumu nnaasu li rabbil alamin mbugal ñeel na ñiy def transaction ñiy jënd ak jaay ñi nga xamante ni bu ñuy nattal nit ñi dañuy dañ koy wàññi ñoom buñ leen di nattal ñuy sàkk mu mat loolu nag bu ko dugal ci jënd ak njaay rek transaction bu mu mën a doon ci biir penc mi yow daal bu fekkee ni yow yaa war a jox jël dangay ngay sàkk mu mat bu fekkee ni da ngay joxe day day manqué loolu lu garaaw la loolu mooy bàyyi xel yàlla di ko fuglu dem bay wax ci wàllu bor bu doxee seen diggante bind leen ko aay bi gën a gudd ci alquran di wax ci wàllu bor yaa ayuha alladina amanu iza tadaayantum bi daynin ila ajalin musamman faktubuhu bu ngeeni bu ngeeni jëflante ci wàllu bor mu jëm ab app bind leen ko ndax xamul yow mi amee ndax danga faatu balaa ngay fay wala yow min ameel di nga faatu balaa ñu lay fay bind leen ko bum mu ci doon àq la boo xamante ni eh, njaboot ga ñoo koy moom ëllëg après yow bu fekkee yaa amee woon sañ njaboot fay njabootu ka nga amee loon kon loolu mu ngi wax ci wàllu penc bi ba ci wàllu politique ak social fi siyaasatihi wa ijtimaai ci wàllu politique ak social sax alquran dala cee indil ay jikko bu dee politique bul bul am politique wu wor maanaam boo bëggee nga nax nit ñi meeb leen ni mool bi def aw jën ba osot ko ba jàpp ko mu lekk meebam dem mu xëcc ko yóbbu moom yóbbu marché jaay déedéet na nga dëggu ci sa li ngay sàkku na nga nekk ku wóor nekk ku dëggu nekk ku nu wóolu waaw yàlla dafa wax ci alquran inna allaha yaamurukum an tuaddu al amaanaati ila ahliha wa ida xakamtum bayna annaasi an taxkumu bil adl yàlla nee dama leen a digal ngeeni delloo ndenkaane yi ci seeni borom bu ngeeni atte ngeen atte ci maandu loolu moom mooy wàllu politique bu fekkee wàllu social mooy dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla wa taawanu ala al wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan leen ci mbaax ak ragal bu leen dimbalante ci bàkkaar akuk noonoo hada wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد mbokki alquran ci wàllu jikko du deñ di boole jikko ak pas-pas ak jaamu yàlla ak jëf yu baax dañoo am ay relation am connectivité ci seen diggante maanaam bii dafa dépendre ci bii bii dépendre ci ba bee dépendre ci bii fu ngeen fekk ku amul jaamu yàlla gu gu jub mooy pas-pasam dafa baaxul bu pas-pas baaxul jaamu yàlla du wér jaamu yàlla bu baaxee day refléter ay jikko yu rafet ci ki koy def jikko yu rafet bu baaxee bu tasee penc mi ay relation yu baax ak yu rafeta fii am waaye koo gis mu naan man ki mu wóolu woon moo ma nax mooy ka nga wóolu woon amul ay jikko yu baax boo ko seetee ba seet ko am na yum doon nëbbu yu baree bari dangeen ngeen koo xamul woon bisa ñëw ndëg mu daal di feeñ yàlla nañ ci yàlla musal loolu moom moo tax alquran bëgg jullit bi am ay jikko yoo xamante ni ci chaîne boobu lay bàyyi ko ci pas-pas ci jaamu yàlla jikko yi door a ñëw jëflante bi rafet bu ko defee ñu am jullit boo xamante ni day ragal yàlla baax jub te loolu dañ koy fekk ci aaya yu bari ci alquran muy wax ni ak mbaax dëgg du du jaamu yàlla kase du pas-pas kase mais lépp ngay boole boo demee ci aaya bay yàllay wax ci suratul baqara aaya 177 laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmi al axir wa aqaama salaa ba aaya ba jeex danga ngay gis ci biir aaya bi yàlla day wax ni mbaax du julli rek ak sëlmal waaye mbaax julli la maanaam pas-pas la jaamu yàlla la jikko la jëflante la naka noonu kon mbokk yi aay yi ñu wax li ñu wax ci li jiitu ak ahadis yi dafa am benn aaya bu leen di tënk ci alquranul karim daanaka mooy wax ci quintessence jikko ci suratu al araf yàlla di wax xudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin yàlla dañuy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam del jéggale di dégle lu baax te jëllale ñi nga xamante ni dañoo xamul dañoo ignorant aaya boobu ku mel ni imaam al-Qurtubi nee na ñetti baat la yu tënk règle sharia ci li ñuy digle ak li ñuy tere ñetti baat la xudil af wa'mur bil urfi wa a'rid anil jaahil imaam saadi itam ci tafsiram nee na aaya bi hadihi l aaya jaamiatun li xusni l naas maa nnaas wa maa yambagi fi muamalatihim mooy aaya bi dafa ñëw di tënk jikko ju rafet ak nit ñi waaye itam ak li nga war a jëflantee booy jëflanteeg doomu aadama yi imaam Bagawi itam wax lu jige loolu wax sax sababu nuzulul aaya bi nii aaya bi bi mu wàccee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa laaj jibril alayhi salaam ne ko waa lii moom lan la ma haada qaala lahu jibril laa adri xatta asal thumma rajaca fa qaala lahu inna rabbaka ya'muruka an tasila man qataaka wa tuctiya man xaramaka wa tacfu an man zalamaka mu ni ko daal lii li muy firi mooy sa borom jibril bi mu ko laajee lii lan la mu ni ko xawma loolu damay laaj mu laaj boroomam ñëwaat ni ko sa boroom daf laa digal ni la jokkal ku la dog del jox ku lay xañ te ngay baal ku la tooñ loolu bu amoon rek penc mi jàmm ñi noy ku lay dog jokk ko ku lay xañ booy joxe njëkkeel ci moom ku la tooñ baal ko te yàlla tax ndax aajo woo nga tëg yàlla baal la mu ngoog te lii moo tënk euh, wax yonent bi sallallahu bi muy dénk Muaaz ci xadisam ba doomu aadama bi dafa war a bàyyi xel digganteem ak boppam digganteem ak boroomam ak digganteem ak penc loolu ku ko dul bàyyi xel dinga nga ami mbetteel ci sa jëmmi bopp di ko am ci sa jëmm ak penc mi waaye sa kanamu boroom da dem foogoon ni foogoon ni te doo fa fekk dara yàlla nañ ci yàlla musal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon Muaad ibn Jabal ittaqillaha xaytu ma kunta wa atbaci sayiata alxasana tamxuha wa xaaliqi nnaasa bi xuluqin xasan ragalal yàlla foo mën a ne loolu sa diggante kan la sa bopp ragalal yàlla foo mën a ne ragalal yàlla foo mën a nekk yow sa digganteeg sa boroom fun la xam ak fun la xamul foo wéet foo wéettilikoo ragalal yàlla loolu sa digganteeg sa boroom la wa atbii sayiata alxasana tamxuha boo defee lu ñaaw toftal ci lu rafet mu effacé ko loolu sa diggante ak sa bopp la beneen bi wa xaaliqi naasa bi xulqin xasan jëflanteel ak nit ñi ci jikko ju rafet ci jikko ju rafet ni nga bëgg ni ñu la koy defal del defal loolu nit ñi li nga bañ ñu def la ko bu ko def kenn looloy jikko ju rafet looloy jëflante bu rafet loo bañ ñu def la ko wala ñu wax la ko bu ko wax kenn bu ko def kenn loo bëgg ñu la koy defal mbaa ñu def la ko dee ko defal nit ñi mbaa ngi leen koy defal waaye boo waxee nit ñi doo ko respecté loolu rafetul ci ab jullit nit ñi bu la respecté respecté woo leen loolu rafetul ci ab jullit booy wax doo wax dëgg buñ la wóolee nga wor buñ la dénkee nga loolu loolu rafetul loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax gis nga suñ penc yi buñ fexe woon ba jikko yi rafet njàmbat mu bari mi yépp dina wàññeeku buñ fexe woon jikko yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi ci aw weeram weeru gàmm nit ñaa ngi laxas di dem ci dëkk yu baree bari di ko fa ji yal na yàlla ñu bu ñëpp ci jàmm ñu ñëwaat ci jàmm waaye liñ waroon a gën a bàyyi xel ci feete anniversaire juddu yonent bi sallallahu alayhi mooy ay jikkoom ak mission ay jikkoom ak mission paayam ci Muhammad ibnu Abdallah ba ku am doom tudde ko ko deeni foofa la yam déedéet waaye ay jikko surtout jikko yi may bëgg a wax al amaanatu wal adlu wal hidaaya wal rahma daanaka looloo tënk sax xilaasu zahab al amaana mooy mooy kóolute nga nekk ku wóor yonent bi tudde nañ ko al njëkk sax muy nekk yonent al turam woowu tudd na ko njëkk révélation di ñëw ci moom ku wóor la woon waa Quraysh dañ ko doon dénk ab atteem dafa maandu woon tam gis ngeen ba ñu wootee ci teg xajarul aswad fu koy teg ñu ni ku njëkk génn ci bunt bii rek muy yonent bi sallallahu mu ni leen giir gu ne na indi kenn mu jël xeer wi teg ko ci morsa ba ban demee ba ca palaas ba mu tegal ko ci loxoom moom yonent bi sallallahu loolu mooy ak maandu ku jiite mbooloo da ngay maandu ci seen biir ci entreprise ba nga yor ca école ba ca jàkka ja lépp loo jiite rek yow doxalal ak maandu ci biir beneen bi mooy jub ak jub dafa am solo ak jub dafa am solo de looloo tax mission am ñëw wallahu arsalahu lil aalamina hudan wa rahmatan ismada jazlun minal loolu la yàlla Seydil Hadj Malick wax ca xilaasu dahab yàlla daf ko yónni ngir njub ak yërmati njub ak yërmande bu mujj bi mooy ñu yërëm ku ne kële féete suuf yërëm ko te yàlla tax ni ñu yàlla féete ci kaw moom féete ñépp kaw yërëm ñépp ku nekk ka nga féete kaw yërëm ko te yàlla tax yërmande jooju bu ko yàlla amal ci ñun du baax de moo tax ñun nañuy yërëm irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama yërëm leen ñi ci suuf ki ci kaw yërëm leen beneen bi jamono ju ne am yu xew ci penc mi fan yii accident yu bare am accident yu bare am ay bâtiment di daanu ay nit di faatu xam nga corona bi fi xewee bi fi xewee dañ daan xëy di wax nangama faatu tey ci réew mi nangam fi mu toll nii li tali bi di rey mu ngi bëgg a ëpp loolu te ña ca jot a faatu moo xam chauffeur la wala passager la. yàlla na yàlla yërëm ñëpp waaye yenn yi nag comportement yi war nañ ko xoolaat comportement yi ñun sëfoor si tali yi xat na waaye xool yee gën a xat kuy dawal boo gëmmentoo baa nga sonn nga tëddi noppalu ku mën a gul maanaam am nga permis bu yàgg waaye perfectionné woo tam voyage yenn yi nga jox ku man bari na ay facteur yenn saay sax dañuy jàpp ay facteur matériel kase la ay cause matérielle yenn saa sax du ay cause matérielle rek nit ñi nañu tuub dell ci suñu borom yan yi du ay tali yaatu ñaata tali lañ fi defaraat ñaata talee fi amaat ah ñaata tali mu gën a yokk gën a yaatu terewul màggal gin génn ñaata accident la la la la gendarmerie répertorié ak sapeur police ñaata moor moo ci am 48 heures yi ñu génn ñaata accident moo am ci réew mi biir réew mi ñaata dese ñoo ci am kon war nañu am ay jàngat ci yooyu xool nan lañ koy solutionner ni mu amee ay cause matérielle noonu la war a amee ay solution matérielle mais am na yeneen cause yoo xamante ne ay cause spirituelle la ñu war ko utal ay solution spirituelle yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi yàlla na yàlla def jàmm ci àdduna bi lépp lu ñu nekk yàlla nañ ci yàlla may mujj rafet lépp lu ñu ragal yàlla nañu ko yàlla dàqal yàlla na yàlla baaxal njaboot gi école yee ngi tijji yàlla na yàlla jàppale wayjur yi ba ñu mën a inscrire seenu njaboot ñu jàng te njàng ma am barke ñun jàngale jàngalekat yi yàlla nañu yàlla may xolu muñ ñuy dékku tey transmettre xam-xam bi ta mu ànd ak ak ragal yàlla akuk sellal te bañ a jàngale am jaxas ak i njuumte yàlla ñu ci yàlla musal rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله